ndax mu wor ñaar fukki fam ci wéru koor bisu bibé le mbir ma wor cheikh ibrahim moo pexé pexe bar baji tulen jiitu leen ba babir kii app na leen leeram gi warna na fu mu tollo xol bay nax naxi wax na ni tuuti kon mu dem fekk serigne ba lam ndiram ba kenn du mos ci baati moom lu bis ba texe ya, jara Seex Ibra Faal jaraama Seex Ibra Faal jaraama Seex Ibra Faal lamp bi Seex Bamba tal yaral ngir yaa kamaal yàlla na nga doli beraxin bamu ñewé ñëwee Mbàkke fekkona fekkoon daara yi di soor moo jàkka yalwaan jiroot ñi di koreyaa di teex teexi wendoo liggéey fanaane root gaayay nelaw banan xuréet baluy ginaar ni korkoréet moo ka xewal daawul doxi moo fa xewal nu yoodi raam moonu tereewu yoone naam fekkoon nuy jàng fa maam moo muy muriitu tey fexen Ya, ko na daay di dir modim di alal baagi di béer lu bamba wax mu daa bur lu mosa am daali joxe moo ba xawal soli sagar moo ba xawal sakal kawar ba sikar daaw fa bàyyi di roh rohi ba mu demi mbake bawol daf ne na wa keur gi bawol may soq tey rooti di wol boleeg liggéey di ko joxe lu bamba wax mu daal di naaw fooreem ju rëy ja saaw naan ko dangay deltu ginnaaw jàngil murit dum pexe mbooleem murit yi di ko soow mu mel ni dof bu mat a yeew ba far ñépp ne siiw meloom ma far di ko doxe mu jiitu far amul moroom far geni bokk geni doom jaraama jaraama xadim wàcc nga wàccaale nga texe